salaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin madadil kaayinaat wa xaatimi risalaat wa ala alihi wa saxaabatihi alqaadati alhudaati athiqaat wa ala taabiciin wa taabiciihim fi jamici tatawuraat radiyallahu an cheikhina mumiddina alqutbi almaktum albarzakh almaalum alabbas mawlana cheikh ahmad ibn muhammadin attijani an xalifatihi wa waris sirrihi wa jahrihi mawlana abi isxaq cheikh ibrahim ibn alhaji abdillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy déglu wala ñuy gis ñu seetaan fu ñu mën a nekk ci Medina ak ci mboolem goxi senegal ak ci àddina bi lépp maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci jëmmi boppam di ndokkeel ci weeru kor wi nga xam ne mu ngi ci waajaa yi jeex di ñaan yàlla yàlla nangul ñu ko te may ñu ñu fekkaat ko ay koor yu bari ca kanam te lépp mu ci àggee yàlla na ko nangu yàlla bu lu baaxam dem gërëm nañ ko bu baax a baax ci feeñuwaay yu rafet yi nga xam ne moom lañ gis ak yi nga xam ne itam gisuñ ko ñu ngi gërëm lépp di gannaaw buñ ndokkeelee nit ñi nuyu leen ndokkeel leen ñu leen di oo ci yiw woo xam ne yàgg nañ koo def yàgg nañ ko taxawee muy naafile gi nga xam ne alxemes ci guddi lañ koy xatmu mu jeex te ren dafa am yaakaar ju ndax ren leeltul jumaa lay nekk ba pare nekk ñaar fukk ak juróom-ñaar ba pare naafila bi di ci jeex ñetti yaakaar yu dajaloo la ci benn bi benn guddi moo tax ñu ngi yaakaar ne nit ñi danañ góorgóorlu ren lu ëpp lu ñu doon góorgóorlu te suñ ko defee itam danañ ko gis ci seen bopp danañ ko gis seen njaboot danañ ko gis seen yënga toog seen dal yëpp barke la boo xam ne kenn warta nangu mu romb la ndax balay baamuwaat ca la yàlla nañ ko fekkee waaye nag biñ fekkee nii daal nañ fexe ba bokku ci ku ci nekk loo mën rek na ko ci def ndax ki nga xam ne moo doon taxawee taraweex bi muy cheikh wala rabbaani utu ay baayam utu ay maamam utu maamam rabbaani war nañ koo dimbale te bàyyi def ci daan taxaw lool ci li ñuy dajaleel ki nga xam ne mooy ilimaani naafila bi waaye nag mbir moomu lépp tam wakkil nañ ko Cheikh Abdourahman Niass mu bàyyi moom dana ko toppatoo li ci aju ci biti lépp ak daayira yeeg yëpp ku ci jaar ci moom rek xamal ne teg ko suñu loxo lu ku ci ni jox itam teg ko suñu loxo te ñun luñ ci jot Cheikh Rabbani dana ci jot ñu ngi ñaanal ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp képp ku ci bëgg def yàlla na la ko yàlla yombalal ku ci def itam yàlla na la ko yàlla nangul yàlla bu mu am benn jafe te yàlla na yàlla nangul ñu ko yaakaar yooyu ñu gis ci suñu kanam ne guddi ñaar fukk ak ñaar la di guddi mu bi ñuy xatmu naafile bi di bokk ci guddi tool nga xam ne yonent bi wax na ne nañ ci ut laylatul qadr nga xam ne ku ko am am nga junney weer yoo xam ne guddi gi nga am moo ko gën yàlla ñu ko yàlla may ñun ñëpp te junney weer boo ko xamut juróom-ñetti fukki at la ak ak ñett ak weer loolu lu bari la kon yàlla ñu ko yàlla may ñun ñëpp te lépp luñ ci jëlee ci yiw itam yàlla na ko yàlla ful yàlla na barkeem sax ak sax ñun yàlla buñ tàggoo ak barke weeru koor yàlla buñ tàggoo ak barke weeru koor yàlla buñ tàggoo ak barke weeru ku bëgg a jokkoo moom danga koy oo ci numéro am 77 634 12 45 waaw ku ko ko oo danga ko jot moom ci boppam itam dana ñëw mbir moomu ci loxoom la ko nekk moo koy méngoo at yëpp ñu ñaan yàlla yàlla fayanteeg moom te defal ko xiw te may ko bëgg am ci boppam ak ci jabootam te barkeel jëmmam barkeel lépp lu ko yàlla jox yàlla mën na loolu yàlla ko def ci barke Baay ci barke Cheikh Ahmed ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ci barke guddi gi ñu jëm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa